إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بالإله سلبا إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بالإله سلبا mbokki julli di mbokki taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool ci wér ci barkeb Serigne Touba ak ndigalul Cheikh Ahmadul Muxtaar rakkam ju baax ji nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Moustapha Al Karim ndigalul Serigne Cheikh Mbacke Madina mi fi nekkal Serigne Mbacke Madina. ak mboolem rakkam sëriñ Abdourahmane Mbacke mi fi nekkal sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ci kilifteefu sëriñ Moustapha Mbacke Mouhamed sëriñ Xaadim Gueye jàngkat bu mag bi mooy wootee te bis bi nga xam ne moom la daan faral di woote at mu jot di ci ñaanal waajuram waaye di ci ñaanal way dawlu yi waaye di ci ñaanal ki nga xamante ni ay xaritam ay wëllëreem ak i mbokkam yëpp ci barkeb Serigne Touba Mbacke Serigne Khadim nag mooy woote le 18 septembre fii ci Touba Darou Khoudoss mooy bis bi nga xam ne ci la daan amal ñaan gi nga xam ne moom la daan ñaanal waajuram di ci ñaanal way dawlu yi waaye di ci sant Serigne Touba bis bi nag Serigne Khadim ren jii daf ko tudd tudde Serigne Soyebu ak kan Serigne Cheikh Darou Rahman di ko ci fàttaliku. moom sëñ Abdoulahi borom dër ba waaye di ci fàttaliku soxna Baali moom soxna May di ci fàttaliku kenn koo xamante ni taalibeem la di xaritam di rakkam di lamin Seck at mu jot sëriñ Xaadim day tànn kenn ci seex si ren ji nag mu ngi ko dara jaale sëriñ Màjju Njaay kon waa Lambaay yëpp nanu fabu ca jóg fekk sëriñ Xaadim ngay ci bis bii muy defal sëriñ Touba. ñi ngi woo mboolem fu kuréelu soppe nekk bàyyiwuñ ci kenn xëy na jërut ñuy lim waaye mboole foo xam ne ni ab kuréel bi soppee nga fa rek ngi lay woo liggéey bi nag niñ ko baaxoo di ko defee mooy taxawu gan ñi li nga xam ne moom mënulu ko boppam ñun ñi nga xam ne dañoo jaayante ak moom ak sëñ Tuubaa rek tax ak xasaay di ñu laxasaayu ñu ànd ak moom ci liggéey bi wet gën ko war a féete ci manal ko ñu def ko muy toppatool ko gan ñi ñenn ci gan ñi nga xam ne dañuy ñëw nekkal ko ca waañ wa di ko berndeelal ganam yi loolu sunub cër la ci liggéey bi kon ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñ ci kenn moo xam muy góor la moo xam muy jigéen di leen fàttali it ne siyaar bi nga xam ne daanañ ko ci def mbooleem kuy ab kuréelu soppe na nga fexe ba saa suñu soññee ne acco ci siyaare ba yéen ñëpp na ngeen waajal seen bopp ci niñ ko daan waajale kon kàddu yi mën naa gàtt ndax woote moom woote rek la kon ñu ngi woo mbooleem kuy soppe ak kuy wëlle reb soppe ak kuy xarit soppe bàyyiwuñ ci genn mbooleem kuy jàng xasaayit mel ni bu ñu tuddee Serigne Fallou Ndiaye mi nga xam ne mooy jëwriñu jànkat yëpp te jiite daayira mooy bu naafi woo nañ ñu ngi ko ci jiital ci woote bi ak mbooleem kuy jàng xasaayit te nekk ci biir réew mi ak génn réew mi ñu ngi koy yëgal ñëpp di ñaan ko fi teew yàlla na Serigne Touba faj sa aajo bis bi moom nañ ko daa defee rek bu ñu xëyee dinañ jàng alxuraan dinañ ko daa defee buñ demee ba toll ci benn danañ ko def fanaanee jàng xasida borom Tuubaa ba asamaawu set ñu ngi koy yëgal ñëpp sëñ Xaadim daal ku dégg kàddu gi na xam ne yëgal na la ko te mi ngi la ci woo ñu ngi ñaan ku fi ñëw suñ Tuubaa faj sa aajo xam ngeen woote boobu suñu tuddee sëriñ Maju Ndiaye sëriñ Fallou Ndiaye mi di xalifaam moom lañ ci jiital njabootu sëriñ Soye bu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ma ca bopp ba moom lañ ci jiital njabootuk soxna Bali Seex Abdu Mbakke Bali gaynde ma moom lañ ci jiital ak magam ju baax ja soxna Astou baali ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo waaye kenn ku ne xam na ni bis bi sëriñ Xaadim Gay da ci delloo njukkal alaaji Mbàkke yi fay jëwriñu Seexul Xaadim ca Ndakaaru fas yéene ko cee décoré loolu nag bëgg na taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp fekke si ko kàddu sëriñ Xaadim Gueye nag la ñuy bëgg a déglu mu woote mbooleem woote bi nga xam ne dajaloon na fépp ci biir réew mi ak bitim réew mi ci bis bi nga xamante ni at mu jot mu soññ ci taalibe sëriñ Tuubaa yi di ko defal waajur waajuram kon ñu déglu sëriñ Xaadim Gueye ñun ñëpp aawusu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin bokki jullit di bokki taalibe ñu ngi leen di nuyu dina wax asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa Euh, ci ndigal si wax Mouhamadul Mountakha mii fi nekkal Serigne Touba yàlla na ko suñu borom gën gën ko fee yàggal te wéral ko ak ci ndigalu Serigne Ahmadou Mokhtar xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci Serigne Cheikh Mbacke Madina Serigne Abdourahmane Mbacke Gaynde Fatma ci kilifteefu sunu bunt ci sëñ Touba di sëñ Moustapha Mbacke Mouhamed sunu ndigalul sunu kilifa gi ci biir kër gi di Serigne Makhtar Gueye ñaan yàlla yàggal ko fi. ñu am mbégte di woote bis bi ñu baaxoo daan woote muy bisub ñaan ak fàttaliku sunu waayjur sëriñ Ahmadou Guèye ak waay dawle yam bokkal yëpp ñam bokkal diggante mbaabu ak ñam bokkal ñëpp ak jullit ñëpp ci gàttal di leen ci fàttalikoo ko ñaanal bis bi nekk ren mi ngi dëppoog àllarba le 18 euh, septembre bii nu nekk di bu ñëwee suba la màggalug daarul xudóos gi lay doon fii lay fii muy amee fii ci daarul xudóos day xëy yendu fanaan tàmbale ci jàngkati alxuraan yi maa ngi leen koy yëgal daara yëpp tàmbale ko ci daara njaarim kër sëñ Moustapha Guèye euh, sëñ Modou Jaxate mook sëñ Xaadim ture ak Baye Cheikh Sène ak sëriñ Moustapha Sey ak mboolem daara yi nga xam ne yëpp daanañ ma taxaw ci alxuraan yi maa ngi leen koy fàttali di ko fàttali itam jàngkati xaside yi ma bokkal xaside yëpp ñu ko sëñ daan waxee léegi tàmbale ko sëñ fàllu njaay ak sëñ Ablaye Seck dugalaale ci mboolem jànkati xasida yëpp sunu woote bii daal mooy sunu woowu woote jànkat yépp eh, niñ ko waxee itam ren di ca fàttaliku Serigne Cheikh bu Mbacke ndax moom lañ ko tuddee moom Cheikhul Khadim di ko yëgal sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke bu ak mboolem njaboot sëñ bu gépp ci góor ak jigéen eh, di ko yëgal itam eh, Serigne Fallilou njaay mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Madiou Ndiaye ak waa Mexe Lambaye gépp bàyyiwuñ kenn. fépp fu doomi sëñ Madiou ne wala taalibeem wala njabootam ñu ngi la koy yëgal di ko yëgal itam nga xam ne ren jii dañ ci rendre hommage Serigne Cheikh Mbacke Darou Rahman di ko ci fàttaliku moom itam maa ngi koy yëgal Serigne Cheikh Abdou Mbacke ab xalifaam ak rakkam yëpp ak kom bokkal Darou Rahman di ci fàttaliku soxna Maymuna euh, bintu xaadimu rasul soxna Bali euh, moom soxna Maymuna bintu xaadimu rasul di ko yëgal Serigne Cheikh Abdou Lahat Mbacke Gaynde ak euh, magam soxna Astu Mbàkke ak ñi ñu bokkal ñëpp euh, di di ci fàttali ko itam Serigne Modou Guèye mi nga xam ne moo doon xalifa Cheikh Adama di ko fàttali Serigne Abdou Hakim xalifaam ak ay rakam yëpp ak njaboot gi yëpp ak mboole mbaabu gi yëpp di ci fàttali ko itam sunu wëllëre bi nga xam ne fii la newoon ci kër gi muy Serigne Lamine Seck di woon lépp ci noonu di taalibe di di di wëllëre ñu ko ci fàttalikoo ko ñaanal moom itam bis bi noonu la tëddee ren ji di ci sargal nag Serigne Mbacke Faye mi nga xam ni ku nekk xam na liggéey bu rëy bi ko cheikhul xadim tegoon ci loxoom tàmbalee ca cheikh Mouhamadul Lamine Baara Mbacke Falilu ba ci cheikh Mouhamadul Muntaqa mii ko war a ubbil boppam mu dëppook ndam li nga xam ne tey jii lislaam am na ko ak diine lépp tege woon ci loxoom tey jii ba mu sotti coleet ñu war koo ubbi ñu war ko cee delloo njukkal war ko cee sargal ñu ngi koy fàttali ñëpp. bis bi le 18 lay doon bu ñëw suba la màggul daara xudóos gi fii ci kër gi asamaan set ci bisu màggal gi ñu ngi ciy woo ñëpp di sàkku teewaayu ñëpp ci wëllëre yi soppe yi am di jàmm yi ak xarit yi bàyyi wuñ kenn asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa dégg ngeen ko noonu mooy jàngkat bi Seex Muntaxa wax ne ko am nga xaas ci Soxna Jaara am nga xaas ci xaside yi kooku nag ku dëkk ci bisam. daje ci xaasi Serigne Touba xaasi Serigne Touba nag képp ku ci ku dajeek moom loolu làmbate rek daj ko ci barkeb Cheikhouna Ahmadul Khadim kon le 18 septembre la fii ci Touba Daaru Khoudoss ku ci dikk yàlla nga dajeek ngërëmul Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.